2 coach noo gisee. Euh, Tafa Gueye. waaw loolu stratégie bi muy bëree la. te aussi xam na ne boo bee ko ëpp doole. waaw te it seen combat bi yàgg na njëkkoon na fa yàqu ñu defaraat ko. waaw promoteur bi toog di xaar ñoom it ñu toog di muñ ndax lañ leen ca fay daanaka jar na ko jaru ko mais seen ngor moo leen ci téye ba léegi waaye liñ leen fay ci combat bi jaru ko. Mhm. Tafa Gueye noonu lay bëree boo xoolee Tafa Gueye bàcc seeraas. nii la def ba bàcc seeraas daw di ñëw ci kaw mu sulli ko daan ko bu yàgg njibbi faas te gaa yëguñ ni mu demee donc abu Ndiassé xale la mais def na erreur ci làmb ji. pour yow def na erreur. loxo droite bi mu jiital. bu ko bëree ba combat bi jeex du gaaw a daan tafaaga yi loxo goos bi la waroon sànni mu jiitu dank loxo droite am ba nga xam ne tafaaga yi du ñeme si parce que boobaa dina ko sóoraane ko kii day xeex. Hmm. mais boo jiitalee sa loxo droite bi ngay xeexee tàllal ko mu jub xocc. sa waay doo dóor mbër mu. en plus en plus gis nañu moom encaissé na coup Tafa Gueye 2 daf ko xeeb dafa ne coup yi du ma def dara wala lan moo tax ku Tafa Gueye 2 yi du doon dugg. Abou Ndiassé dafa yenn combat bi ñi mu àndal gën koo yenn combat bi. Hmm. mais buñ ko bàyyiwoon nag liberté boppam ak li mu entraîné ci yaram bi ak li ma gis ci yaramu nii. war normalement warut a taxaw Tafa Gueye. waru koo may sax même buy wëndeelu day dox ci kaw jàpp. noo déggoo la wax damay waaxu ba taf ko ci benn poqataan. tàllal sama loxo góos ndax buy ñëw ma nàq bu ñëwee ma sulli ko daan ko dem jibbi bu yàgg man lan saar maa la ko wax. dëgg la de ba ci kanam. ba ci kanam voilà mbokk yi euh, dégg ngeen euh, Mame ci taxaw seetlu bi mu def ci diggante Abou Ndiassé ak Moustapha Guèye numéro 2. gis nañ ko Moustapha euh, abu Ndiassé gis nañ ko mu ñëw ak état physique bu extraordinaire entraîné ba taxaw hmm? musculi saillant aussi mu ñëw nag ak. je sais pas ak benn benn sas laa mën a wax parce que doomu ndeyam mi fi bàyyi ko mooy Fodé ñu koy ñaanal yàlla xare ko àjjana en tout cas lu ñu ko mën a wax mooy Abou Ndiassé mooy entraîné na ñëw na song na waa ji waa ji nanguwul taxaw Moustapha Guèye de jinne la donc neexal na stade bi et donc euh, am na victoire ñu ngi koy féliciter moom abu Ndiassé il est temps parce que kii ma doon bëreel moo ko mag moo ko jiitu ci làmb lool il est temps nag mu jël ay moromam nag daal di prouver bu baax a baax a baax ci làmb parce que boo xoolee taayu abu Ndiassé nga xool li mu entraîné war na mën a bëre képp koo xamante ne mbër nga ci làmb ji alors ñuy féliciter encore une fois euh, Lay Ndiaye ci le fait que mu tëgg làmb ji ñu koy féliciter bu baax a di ko encourager ci yeneen yoo xamante ne mu ngi ñëw Cheikh Omar la woon ànd ak ki nga xamante ne moom mooy mbay du Elage mbay la le meilleur <laughs>